mbokk yi jàkkaarloo ci ñu ñoo ngi leen nuyu kenn ku nekk sa tour ak sa sante ci di leen ndokkeel bu baax a baax di ñëwaat nag àndaat ak yéen ci seen émission bi nga xam ne moo di yewu yewi yeewu yeewi di émission bu nga xamante ni dañ ko sos ngir nag di ci waxtaane lépp lu nga xamante ni nit ki da koy aajowoo ci ak dundinam ñi ci dalal nag ñoo xamante ay kilifay diine lañu di ci dalal ay kilifay aada moo xam

pikin Nor dalo dal ken ku nga xamante ni xam na taxawaayam di monsieur Amadou Jara nek maire bu pikin nor wai tam bok ci comité directeur bu PDS euh, momi itam di borom taxawaay bo xam ne ku am ay idée la kon yaakaar naa mom lañ dalal tay kon euh, monsieur Jara ñu ngi lay nuyu di la bay rek nga présenté wu su ko defé nak ñu sobu ci euh, waxtaan bi Euh, bisimilah rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad wasalim maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñuy seetaan ci murid point info di leen nuyu également yéen ñi déplacé wu ñëw fekk ma fii ci bureau mairie commune Pikine Nord euh, di am mbégte di fas yéene wax ci actualité politique bi di ko wax ci sama xalaatu bopp mm-hmm. euh, sama xalaatu bopp bi nga xamante ne li ko wund mooy sama jàng mm-hmm. sama yar

une grève Je suis ngi def cinquième secondaire. Mhm. ma def grève ensuite école grève ma suis huit heures neuf heures rek ma 9 mhm. fekk sama suis bu responsable Je suis RDA Allemagne ak Je ñu mhm. mm, jóge woon Je suis sama mm, ma ma grève Je suis grève ci la ma wax benn baat espèce de mouton de Panurge. Mhm. maanaam daf mel ni yow say moroom dañ lay yóbbu grève rek te xamoo lan la. te xamoo lu nit booy dugg dara da ngay xam lan la. Mhm. loolu nag def ci man bañ demee ñu waxati ma waxi grève man leen ne lan mooy lan moo tax ñuy grève man duma grève ci neen. Mhm. ñu jox ma tract bi ñu joxoon wax ma affaire yi ma dem jàng ko comme le leçon histoire wala géographie këru ko nag. alors ben, bés ñu toogaat di grève ma jël parole réciter tract camarades chers élèves nous don, nous disons non commencé des bains. mais ni ma ko réciter vraiment neex nit ni, ful bi tàccu mu tas rek ñëpp topp ma li ñuy wax léegi nii buzz. Mhm. ma am buzz bés boobu. Uh-huh. alors police di jàpp rek comme ma taxawoon ci tribune bi di wax ba ñu topp ma ki ñuy wax Léopold Diouf commissaire Pikine mhm. jàpp ma. muy sama première arrestation alors dóor ma ba sama yaram dag mu bayima grève bi ñëwaat ñu def assemblée générale ma ñëw suméku won leen dóor yi li tok la té duma délolo ginaaw hmm affaire bobu nak tax jarabi siw hmm am après ma dem lycée limam lay ñu né xalé bi ñëw né boy bi nekkon pekin sud ñëw na moy Cheikh Mamadou ci lañ ñëw nak ñu jël ma né ma légui comme yow dirigeant nga dañ la bëgg a boole ci foyer bi. Mhm. ñu boole ma ci 15 personnes yi diriger lycée Limamoulaye alors ñu ne ma am nga risque boy def parce que yow euh, su dee amo avocat. Mhm. say njaboot say waa kër dinañ son parce que mën nga dëkk ñu lay arrêté ça su ne. léegi nag dañ lay yóbbu ci président Ablaye wad avocat la parti am bari na ay avocat buñ la jappé do fay dara. ma leen ne leen dem parce que man lii dama ci xeex. ñu yóbbu alors ñi ma yóbbu woon boobu y avait Alioune Diop Ardo Alioune Diop Ardo nekk na fi conseiller spécial Ablaye Wade. Hmm. alors mu yóbbu ma foofu moom ak ku ñuy wax Djibril Samb jamono yi mu ngi Canada. Hmm. alternance sax fekk ko fi. alors ñu dem nag mu toog ak Ablaye Wade vraiment ñu waxtaan ñu pare ñu def ma photo bi ma def ak moom jamono jooju Aminata Lo. Hmm. mos na fa nekk ministre. sama délégation la bokkoon. Samba lii bi nekk réew mi. nekk député tey sama délégation la bokkoon. Ah, donc ma nekkoon un jeune leader yóbbu ñooñu ñëpp ah. Hmm. alors ma yobu oh, wax daal di né ñun dañuy grève mais war nañ changer façon grève. Hmm. dama seetlu ne ñi fi nek muy socialiste fu melni ñom ñoom ñoo ñuy pousser grève yi dafay ñu am 3 mois de retard 4 mois de retard ci sunu année scolaire pendant que seeni dom ñoo ngi jàng dans les meilleures écoles au monde. Hmm. alors donc seen ñom dañuy jiite sunuy sunuy sunuy waajur. seeni doom wuti diplôme ñëw jiite ñu moo tax est-ce que du ñoom ñooy provoqué grève man Abdoulaye Wade est-ce que ce serait pas intelligent ñu am benn formule bu ñuy am ba di grève en dehors de la ne scolaire. Hmm. loolu moo indi baatu vacances citoyennes. Hmm. loolu man maa ko jox moo Modou fa Fada jamono yi mu nekkee hmm. ministre. ñu ah. ne léegi bu école tëjatee dañuy ñun élèves yi dirigeants yi dañuy ñëw di grève di wax ak administration bi wax ak préfet wax ak censeur wax ak proviseur. dem ministère de l'éducation nationale. Mm. su école tijjee fekk posé nañ problème du grève. Mm. Wade regardez-moi ni la Abdou Diouf di wax une jeunesse malsaine regardez la pertinence de ce discours de Djara. Mm. ma jóge fa amati buzz. journal Sopi photo ko indi li ci Ablaye Wade wax ak sama déclaration ma jël ko suyaat ko ba tey maa ngi ko fa tey loolu moo ci politique. te loolu moo ma dugal ci Abdoulaye Wad. ma jóge fa nag invité ko l'Imam Limamoulaye opposant le professeur proviseur bi du fi déclenché 48 heures de grève ne ñun pas Ablaye Wade responsable politique mais c'est l'historien hum. c'est l'économiste c'est l'homme de droit c'est le penseur dont on a besoin parce que Tembi, c'était les perspectives pour l'unité africaine. est-ce que nekkul salfaañe euh, li nga xam que sart lycée bi yoy jamono. non lycée yi mënoon na ñëw indi professeur Bassir Diagne mënoon na ñëw indi nous prof de philosophie. Hum. comme ñun nous soxla xam-xam et on parlait de perspective de l'unité africaine Nous avons vu Wad un destin pour l'Afrique am na A ci te de université France, indi d'ailleurs proviseur de France, vous amenez un politicien ma ne non il faut pas insulter l'intelligence de Wad Wade a ci élèves ko politique séparer les deux mais on doit parler de, de la monnaie unique africaine, on doit parler d'un gouvernement continental, on doit, on doit. Quand on a lañ nous sommes le meilleur di seeti euh, euh, euh, photocopie mhm. pour nous, Wad c'est le meilleur il est au Sénégal Moi, la invité. Wad nañu pour bañ nous li nga wax proviseur bi signé lul invitation. Mhm. dama fa sama grève pour nous signer Donc donc mot d'ordre bi c'était la signature de l'invitation de Wade ci laa ko indi que li maamu que xaju fa je me rappelle proviseur ko trembler comme trac mhm. a parole proviseur rassurez-vous demain je serai une autorité dans ce pays mhm. ci la quelques mois lañ ci dans le gouvernement de de 91 donc pour wax loolu moo ma mhm. politique moo a dit ci ci PDS bi tax politique Kabirou Mbodj dañoo a def ci réunion ci grève ñu vacances

ñu ne ñu mu ci biir ñi naan nekk fi ñu toog jékki-jékki oto bi départ monsieur le maire dem bàyyi ñu fa jour boobu laa dogu ne man dinaa mos a nekk maire. Hmm. donc ñaari engagement yooyu. Hmm. mbéj bi ma sama nijaay may jox. Hmm. daje bi ma daje ak Ablaye Wade en tant que leader élève. ak maire bi ñu doon nëbbatu te waroon nekk suñu suñu jaam suñuy soxla di ñu nëbbatu moo tax man ma nekk façon maire bi nga xamante ne du ma mos a nëbbatu ba ma rombee ci grand place sax fekk. Euh, Lol, amna solo waye nak euh, ginaaw buñu ñu fofu nak ci euh, li li tax nga dugg ci walu politique na dugg nak ci li nga xamné moy mooy doxinu réew mi ndax yakarna PDS c'est une parti mo fi nekkon ci 2000 ba 2012 mu daanu léegi APR ñew ak ñi nga xam ñom la andal ci di gouverner réew mi ndax tay soñ doon natal doxinu réew mi fi mel na ni réew mi moom ñëpp ne leen macha allah bu wér fimu mu mom nii da ngay ne mel ni nit ñëpp loolu la ñuy wax pour man dama damay damay nelaw wala damay xaw man c'est le contraire laa dégg. mun nga maanaam nit ñi rëccu la ñu gën a jege que que. Hmm. waaw nit ñi def mel ni dañu rëccu maanaam Ablaye Wade mi ñu doon wax ne na fi jógee ñu indi Macky Sall. Hmm. jamono ji dañuy rëccu dañu gën a dañu gën a dañu gën a rëccu li fi Wade jógee. Hmm. tey bu ñu mënoon defaat mu nekk ndaw. li tax nit ñi daw wuti doomam balkare que tëj nañ ko rëbës c'est parce que rëccu boobu ñuy xool ci Ablaye pour indiwaat ko te yaakaaruñu waat jëmmam ñëw ñu jàpp ne ci doomam Karim. Mm-hmm. am na suffisamment de connaissance am lu yëbb ci Ablaye Wade ci moom. Mm-hmm. ba rëccu boobu mun nañ ko corriger indi ko dama lay jox benn exemple rek. Mm-hmm. monument de la renaissance dañ ko doon wax lu nekk barki démb dama seetaan Mimi Touré këram muy def émission seen jotaay. mais ci kaw meuble yëpp ay statues laa fa ay te dañu doon wax ne maanaam yett luy niru nit araam na kon monument de la renaissance dafa araam Abdoulaye Wade ne leen loolu jubluwuñ ci monument de la renaissance ci dëkkub Serigne Touba dëkku El Hadj Malick Limamou Laye Boukounta ak ñooñu nit ñi duñ fa mës a dem di ko jàppee yàlla ba koy ñaan. Hmm. esthétique bi lañ soxla. ña xeexoon loolu kuñ ci wane jamono ji sab télé ci télé ñu wane la sa kër mbaa sa bureau am nga fa lu ñu yett.

donc mu jóg nag pour yeewi Afrique pour nous, talal loxo Occident ñun ñi def culture euh, française la littérature française xam mm-hmm. la femme en termes poétiques représente l'Occident donc jigéen bi day représenter ki ñu defoon buumu jaam mm-hmm. am Amna walu bu ci Serigne Touba liguey ba panafricanisme bi réalisé mu mun wax xéddi yu weex yi yéen rek moom leen yonent bi salaahu salaam mm-hmm. Abdoulaye Wade ci wàllu politique mu wonné Afrique yeen Touba bi ñun mun nañu yeewu suñu bopp mais duñ leen baal duñ leen toroxal dañ leen di on on vous pardonne mais on n'oublie pas il faut qu'en Afrique ñu am un monument pour représenter ce géant africain qui tend la main à l'Occident muy sa femme. nous mm-hmm. contribuer avec une famille. du monde de donner et de recevoir bi sa nga par ba indi l'enfant qui symbolise l'avenir gens mm-hmm. koy ne donc l'homme lay symboliser nous nous des fay def spectacle saa Dans grand théâtre nous fait des spectacles spectacle demal centre ñaajo bi ñu def 60 milliards. Macky Sall mm. def ko fa. Mm. benn sénégalais demu fa. ay tubaab yi rek ñoo fay daje. francophonie lañ ko tuddee ancien secrétaire général francophonie lañ ko tuddee ci bunt bi ñetti ngandi monument ñoo ngi ci ci bunt bi. maa ngi gis keroog ay kilifa diine yi nga xamante ne ci dañoo bokkoon ci mouvance présidentielle di di sànni xeer Abdoulaye Wade keroog ba ñuy dugg ci biir salle ba Macky Sall dafa def cérémonie ci invité yi lañ bokkoon. mané ñi ñii ba ñu ñëwee ba jub bunt bi gis statue ak baat ba ma leen déggoon ba ñuy dingat waat dañoo waroon dëpp mais dañoo nuy miix dugg ci biir centre Diamniadio bi mm. ay statue statue moo fa nekk mm. loolu nag damay bëgg seen télé bi dem fa benn bés visite rek mais def zoom ci statue ci buntu ba te mouvance ñii kon opposition doon dingat lépp luy statue ñoo ko def moo tax benn bés dama fekk Abdoulaye Wade Versailles ma ne ko yow yaa ñu tooñ parce que ba ngay defal monument de la Renaissance da nga waroon defal bu ndaw parce que jamono ji nga maaseel lu ndaw lañ bëgg mais yow comme lu géant nga def comme lu pharaoni nga def seen xol day bon France day mer parce que li nga defar ëpp na seen tour Eiffel moo tax ma ne rëccu bi ñuy rëccu nii fépp fu Ablaye Wade defoon ñu koy dingat ba ci musée de l'homme noir bi ñuy waaj a def nii pour siggil der gu ñuul pare na demal centre euh, euh, mun fii Grand Théâtre moo taxaloog moom mm. pour wax la Abdoulaye Wade nit ñi dañ koo rëccu dëkk bi fii may wax ak ñëpp a ngi jooy. daan jox milliards yeeg yooyu kay ñoo rëcc waaye ñi nga xamante ñooy borom kër yi nga xam nag ñu daan génne seen poste di joxe joxe dépasse bi gis nañ gasoil wàññeeku na essence bi wàññeeku na ci njëg yi itam ñu bëri bëri nañu yokk gi itam bi ñu makki toog ak léegi moom wàññeeku kenn gisu ni mu yokkee mu daan yokkee ci seen nguur yi waaw mala loolu c'est important maa ngi gërëm sax ba nga ma laajee question boobu gis nga Wade da ngeen di xool Ablaye Wade 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ba gagné dès le premier tour gagner mm. ngay à partir de 2008 a une crise mondiale économique le baril du pétrole commence à y aller. Mm. Le courant commence à couper pourquoi parce que le courant pétrole lay doxee mm. tey le baril boo doon 30 dollars le baril nga war ci jënd ay le baril pour tel courant pour les Sénégalais 30 dollars excusez moi 30 dollars boobu yóbbu nañ ko 124 dollars ci si vous Wade kon boo doon jënd pour taal courant Sénégal léegi juróom rek ngay jënd ndax seeraay bi Wade ne du ma ko yokk ci facture yi mukk di jël gafaga réew mi li mu naroon def feneen hmm. war wàññi ceeb wala yëpp du ko yokk ci luy compenser loolu mu subventionner l'électricité hmm. pour téye ko fi mu téye mais Macky ba mu dikkee loolu moo dem 2008 2009 2010 2011 mu metti ci am na Cameroun muy crise les émeutes euh, de l' électricité yi nga déggoon am na dëkk xam te ay président sax daane ne leen Sénégal mënu ci woon mucc Ablaye Wade nit ñi wàcc ci mbedd mi ndax coupure yi ci la karam génn nag sama santu bàyyi dama ko war a sàmm Samuel Sarr moo courant bi mais dakkul coupure yi dakkul xaaral ma jël ko ñu ne ko c'est sensible mu ne sama woyu bàyyi jox réew mi am ci moom yaakaar dinaa indi solution ci la indi plan takkal mm. cëpp benn tout ce qui est expert en énergie nous allons à la guerre contre les coupures. Mm. ci Nous nous régler définitivement euh, affaire u euh, coupure électricité mais Macky Sall le baril pétrole le di de di chuter 124$, dollars le yi c'est moins de 30$ dollars depuis deux ans na. Mm. mais comme sénégalais dans duñu cours mondial bi duñ ko au lieu de nous wax nous ñu ne ma moom it mu xamné bu bu bu bu bu ñu nit ñi. comme mm. seen émission bi num mu tudd. Mm. yeewi leen dinañ revendiquer lolu mm. mu né nee léegi nag ñun opposition discours à la nation bi mu def le 31 décembre bi passé ci lañu ba wax affaire croissance ci lañ ko né cim. Ah, ñu ne 6 6 wax nañ ni euh yok na. vraiment réew mi nag côté boobu moom tubaarkàlla. non non non borom euh, xam-xam yëpp FMI wàññi weddi nañ ko banque mondiale wa statisticiens yi wàññi nañ ko mais ñun bañ ko waxee cim xam luñ ci teg. Hmm. dañ ne yow jamono ji war nga weesu fii dëkk yi Côte d'Ivoire guerre la nekkoon actuellement mu ngi dem ci deux chiffres. ci guerre la jóge hmm. Alassane Ouattara ak Gbagbo ñoo ngi ñoo ngi koy fàttaliku Abdoulaye hmm. Wade fi ne woon. kon ku ñu demee ba Côte d'Ivoire jóge ci guerre raw Sénégal te Sénégal demul ci guerre ça veut dire ab cuune ñu jiite. ben deuxièmement ba affaire bi wàccee nañ fatlikou jamono Ablaye Wade 2000 ba 2007 fofu la tolaatoon mhm. kon bu fi fekkoon Ablaye Wade Sénégal mais pare lay doon liñu wax lu mu wax nan euh, guana mhm. grande offensive pour l'agriculture et l'abondance mhm. kon abondance dañuy dem mais Macky la fi fekk wàññiku bobu au lieu mu indi ko ci ci wàññi njóg yi mu ne nemm ak moom paas yi wàññeekuwul courant bi wàññeekuwul dafa yok ndox mi wàññeekuwul prix yëpp yok mais gars yi comprendre Macky di dajale ay milliards plus de 200 milliards Moussa Moussa Touré wax ancien ministre de l'économie et des finances là mu ne état bi par année moo ngi gagné 200 milliards te waxu ko ci lan baril bi liñ ko don jëndee en 2011 bañu ñuy Ablaye Wade affaire bi metti ci mom mm-hmm. légui yom na ci Macky Sall waye mo ngi ni xim ak mom té am bénéfice bobu té wañi njëg yi donc Sénégalais bi toujours mom lay moy perte bañ ko waxé discours à la nation mm-hmm. maa ngi fàttaliku émission yi ci am yëpp gars yi naan ko tey waroon nga wàññi gaz waroon nga wàññi pétrole waroon nga wàññi ceeb waroon nga wàññi transport. Mm. parce que nangam nangam wàññeeku na. parce que baril bi li nga ko doon jëndee jamonoy Ablaye Wade léegi jóge na cent vingt quatre dollars jóge na cent dollars. Mm. jóge na quatre vingt dollars tey egg na sax ba vingt sept dollars. kon ma Macky waroon ndamoo ne am nañ croissance parce que yaa ngi ne guux ci plus de deux cent milliards de bénéfices yu war a mun a dem ci askan parce à commencé wax rek. Mhm. ci un mois mhm. mais tu bi la 40 francs. da nga de Madame, deux milliards je mënoon mhm. na wàññi lu mu cent parce que déjà am un bénéfice de 200 milliards par Mais milliards deux ans. ba pareil ba bataille ba espérer avancer mais bataille yenn yu yenn lu yenn maanaa moo tax gars yi am na benn benn wax waxkatu xalaat hmm. bu wax ne li nga xamante ne sénégalais yi ñoo ko moom président Macky Sall 40 pour cent la ci wàññi 40 hmm. francs la ci wàññi mais nga dem autoroute à péage ba tey daf ko yokk hmm. ku moom loolu ba tey 1000 francs ngay fay 500 ngay fay 1500 ngay fay ñoo ngi jëlaat ci sénégalais yi

wax bénéfice bi muy wut su fekkee c'est pour APR kese. Hmm. di la mun a jox bourse familiale yi di leen jox ay quotas comme li xew Pikine képp ku bokk APR ñu bind la ci bourse familiale yi bind bay bind ay professeur loolu moom yéen a ko fi njëkkee waaw non loolu moom lu bees loo xamante ne euh, d'accord la nag moom way néew doole yi ñoo ñoo ci ñoo ci bénéficié wu euh, ku am kàttan néew ku ci ndax dañoo jàpp naa dañ koy saytu ba xam non fan la néew doole non non yëgoo li ah, xew ko dafa amoon première génération bourse familiale waaw ko joxoon préfet yi ak chef de quartier yi ak imam yi mhm. ak association ak bàjjanu gox yi mhm. ñoom ñooy xool ñi ko yooyoo ñu bind leen mu jaar ci mairie bi maire bi signé ko mais comme mairie yu bëri dañ koo perte ñoom. Mhm. ñu ne léegi ñoom gox yooyu waa APR duñ gis seen bopp parce que bu chef de quartier bi di tànn du leen tànn. Mhm. kon Macky Sall du leen ci mën a jox te bëggoon nañ ci am. ñu koy kaas ba Anta Sarr ñëw nekk ministre. bi mhm. ñu dénk mbiru bourse familiale yi. ci la leen woo nee leen léegi xam nga lan la mën a mairie bu ab ab ab PDS gagné rek. damay jalgati affaire yi léegi yéen waa APR yéen may tànnal. mais dootuñu jaar ci préfet bi ak maire bi ak chef de quartier léegi APR dañ fay bokk am na maire bu ma taseel sànq mu naan ma man yeyoo naa ko ma ne ko yeyoo nga ko mais ki ki koy joxe moom nga seetagul mu ne ma ma digg maire yi la man ne ko déedéet chef de quartier bi seeti naa ko mu ne ma bindoon na ma waaye joxuñu ma. Hmm. ma ne ko seeti goo ki nga war a seeti mu ne waa ku may seeti ma ne ko waa APR mu ne ko ne du am parce que du dem ci ñoom. <laughs> ma ne ko boo bëggee am. Uh-huh. demal ci benn responsable APR nga ne ko bind ma ci sa quota soo ko defee di nga am maa ko ko digal. C'est vrai que nous dinañ ko parce que 20 milliards a APR président Macky Sall budget le Sénégal bu voté a 20 milliards de nañ Macky droit nit mu koy jox ay Sénégal. Sénégalais. waxuma Sénégal APR yi Sénégal. mais APR bu ko pas nañ ko dem ca koy mu donc pour wax la rek ay Il y a ji Santo Santo Sall Santo Gassama Timbo boko ci neex boobu nag bu fekkee bokk ak Timbo wala la bokk ak Gassama parce que loolu moom yàgg nañ ko fii dégg dégg nañ dégg fekkoon nañ fi histoire bu bàyyi euh, fekkoon fi la ñu fekkoon non loolu opposition bi moo doon moo doon wax nee nañ sax nee nañ monument bi xale bi xale bi mooy Karim kii mooy Abdoulaye kii mooy Viviane xam nga loolu waxi opposition la kon est-ce dama la nee ñun dañoo bind uh-huh. fii ci Anta dafa ñëw fii ci mairie bi uh-huh. préfet ñëw ñëpp toog uh-huh. ñu ne ko Anta Sarr génération bourse familiale quota waa APR la ñu enquête ñoom ñoo ko joxe. mu ne yéen waa APR Macky Sall waxul yéen ko moom ku ko jël na ko goqe. lii may def tournée pour saytu loolu la. dégg naa coow yi imaam yaa ngi wax chef de quartier yaa ngi kaas parce que fañ ko doon jaarale bañ ko fa jaarale dañoo jël liste yooyu ñu jël ne ñoo ko yeyoo. Mm. ñu teg ko ci suuf génne yeneen tour mu jaaxal ñëpp. Anta Sarr ñëw nag def tournée di expliquer. moo waral muy dem dem na mbaaw coow lu rëy fa amoon ñëw ni fi sama commune imaam yi ñoo waxal seen bopp. Mm-hmm. ne ko ñun da ngeen ñoo liggéeyloo ba ñu liggéey. Mm-hmm. ne ñii ñoo ko yeewoo ca mm-hmm. quartier ba ngeen tegg ko indi ñeneen ñu dëkkul ci quartier. ñëpp xam nañu yéen da ngeen a bari ay ay feem est-ce que ne ci ginnaaw ñooñu nga xamante imaam yeeg ñooñu. pour wax leen jaxase leen ak askan wi ba tey ñoom ñu dal ci kaw président Sall ak euh, Anta Sarr. mooy liggéey billaahi wallaahi wal kitaabi barki alxuraanul karim lii ma la wax moo am ren ci Pikine. parce que si dina moom ba àdduna tukki moom. bu yéen gaaw ndax yéen xam nga di def débat politique di waat seet man. Uh-huh. su ma waxee bokk PDS nekk maire bokk opposition mën nga ko jàpp moo tax ma bëgg ñii seetaan ñu xam ne. Hmm. waxuma waxu politicien. moo tax ma osé waat dama ne billaahi wallaahi walkitaabi ren Pikine bii ma nekk maire. Hmm. képp ku am ci bourse familiale yi quota responsable APR moo bind sa tur nga am ci. Hmm. loolu nak Abdoulaye Wade musuko def musul jël lu alal senegal mom mun naa la jox Pikine ba mu daj Abdoulaye Wade def na fi 12 ans gisuma ben jeune bu bokk fonction publique dañ ñu koo sikkee am ñu doon and ak man Bama parce que nenañ nek na fi 12 ans ba mu jeex fexewuma ñu dugg fonction publique d'accord Abdou mbaw jeunesse PDS la bokkoon mm. euh, FNPJ ñu jox ko ci financement fayul

da ngay gis am na benn maire bi nga xamante ne ba ma joxee turam woo doomam ma ko sa yaay lu muy def APR parce que bind nañ ko ci daf ko wax yaay ji yaay ji ne yëgul ne bind nañ ko ci parce que laajul. Mm. mais député bi xaritam la xëy na looloo tax mu bind ko. Mm. te joxewul sax carte yëgul ni sax ñoom jox nañ ko ci. donc te doomam ci man la bokk ci mairie bii la nekk conseiller municipal la fi mais ba mu ko nee maire ne na ma jox nañ sa tur ci quartier bi député bi dëkk ci quartier bi daf ko mettilu mu ne man pas tax may bind te man ñaanuma len mu ne ko neel jara na ma effacé ne ko du démé nonu yalla la ko dox sa wërsëg la jëlal. pour wax la. Mhm. kon da ngay dokk APR ñu jox la ko. lolu en terme d'économie... détournement la. 20 mhm. milliards votés dans le budget de l'état du Sénégal ñu jox ko à un fonctionnaire une dame qui s'appelle Antassar... Qui Sarr mu à tout à des ayants droit des bénéficiaires avec des critères définis avec des comités de ciblage installés par

wax nañ ci seen waa ji di Karim ni nag war nañ nañ ko génne ca euh, fay koy intérêt ndax dañ ko tooñ àttuñ ko teg ko ci yoon yow loolu ban jàngat nga ci am sax ba pare. waaw mais mais li ma la ci njëkk a wax mooy. Hmm. man ba fii may wax nii man kër yi bu ma woowee du ma ko wuyu buñ ma nag. Hmm. yóbbu ma dañ maa doole. mais man gëwuma kër yi ma jàpp ne kër yi justice Macky Sall la mais am nañu gëm kër yi. Hmm. am na Karim yoonu Sénégal la ko jàpp. c'est pas vrai. ñu baal ma Karim justice Macky Sall moo ko jàpp bu tudd kër yi.

Créer lu xaar pour ubbi une instruction ni ñu woowee conférence de presse Alioune Ndao procureur spécial. Mm. ne Karim Wade Omar Sarr Madi Niang Samuel Sarr Ousmane Ngom dañ leen a top. Ben, topp ba yenn député yi ñu ubbi seen mbaaraan seen. mbalaanu kiraay ah. ba ne dañ leen di d'urgence pour mun leen leeral leeral sénégalais yi lu tax du ñu leeral ci Massa mi justice internationale di wër lu les Lamine Diack mi avoué créé du ben ben benen bi Karim wad ñi liñ doon wax ñukay koy weddi suñ demee ba Nations Unies teg un groupe de travail coréen bi nekk ci. magistrat coréen bi nekk ci. Mhm. wala homme de droit japonais bi nekk ci. chinois bi nekk ci indonésien bi nekk ci africain bi nekk ci ñom ñëpp ñu nekk ci ay xeet yu bokul mhm. naka la Karim di nekkee rebeus Ablaye wad di président am doole yi wañaar seeni nopp.

deug la wala du deug li ñuy wax lolu naka la ñu amé doolé Macky Sall président de la République François Hollande diko jappalé euh, réseau yi doon xex Ablaye Wade yëpp nek ci ginaam mm. mu mu ñooñu ba waxloo leen li metti avocat yi ba ñu jël ay avion jël avocat sénégalais yi. Mm. Yirim Thiam xam nga Yirim Thiam la xam nga fàtte mais Yirim la tuddu ah, ami ah, avocat euh, Sénégal la. Euh, demaat ci Nations Unies ci groupe de travail ba. Mm. ne leen li fi avocat karimi wax dara du ci deug liñ ñu leen présenté baaxul lii mooy vraie information yi ñoo ñu ne ko may leen ñu ñu gëstu ko dina leen tontu. Mm-hmm. ñoo tontuwaat kérok aljuma mm-hmm. wax ne ba ñu dégloowaatee avocat état bi wat avocat Karim yi ñoo ngi firndel liñ ñu ne Karim Meïssa Wade dañ ko arrêter de manière arbitraire jamono ñu koy téye di def ay deuxième mandat d'arrêt xaw deuxième deuxième euh, euh, nu mu tuddati arrêté ko une première fois jox ko ben comment on appelle 6 mois, 6 hmm. mois de... J'ai oublié le terme. 6 mois de détention. 6 mois, 6 mois, la loi créée, si on applique, on sous 6 mois est passé, on doit procès directement. 6 ah. mois est passé, on n'a pas été atteint, on n'a pas été éléments, on n'a pas été fait, on n'a pas été mis en demeure une euh, mise en demeure il y a 6 mois la loi créée, bi loi bi ñu utiliser mm. interdit de détenir quelqu'un au-delà de 6 mois de mm. demuñu procès et malgré cela, ba ñu a procès ñetti chef d'accusation la ñu toppee Karim enrichissement illicite corruption ak euh, détournement des deniers publics mm. corruption moi, dans mon président là, alors Mbaye Gueye yow yaay ministre bi wala yaay directeur société bi jox ma marché bi wala jox ko sama xarit. Hmm. loolu mooy corruption. Hmm. te nga jox ma lii mbaa ma jox la lii. loolu mooy corruption CREI nee na ba mu àttee ci jugement bi ñu tëj Karim. Hmm. CREI yi nee na gisuñu dara ci corruption. détournement deniers public mooy alalu Sénégal. comme comme Sénégal fiftinu Sénégal Karim jëlu ko randalu ko ca lañ ko dénkoon. nekkoon na fi ministre ba ñuy wax ministre de la terre du ciel de l'océan et de l'air si vous voulez. mais ndam lim ci am mooy. CREI bi ko bëggoon a far na bëgg koo wut lu mu taxaral. Mm. nee na Karim Meïssa Wade ca lool yëpp mu yoroon nekk ministre de la terre du ciel ak yëpp déglu rendalu ci dërëmu Sénégal. kon lañ ko tëjee kon. enrichissement illicite nee na lañ ko tëjee mooy lan mooy yor na alal bu lewul bu ñu xamul fu mu jógee. Mm. ah ci ministère yi yi mu jaar. non non non non non dañu ne dë ministère yi mu yoroon alalu Sénégal la yor. Mm. ñu ne seetal nañ ko ci.

Euh, Arabie Saoudite wala waa France waa États-Unis ñu ñëw indi fi seen alal tabax na fi ay tali ay autoroute ay aéroport ñu indi ay xal monté ay def ay dossier de montage financier Sénégal gañe xaalis. Mhm. mais nee nañ randalul dërëmu Sénégal kooku ndam la am te kooku moo ngi rëbës tey indi. Mhm. kii wax nag ne pour xeex Ablaye Wade maanaam bàyyi kooku pour mu xeex ko. Mhm. dem na ci Russie jël alal bu lewul kooku moo ngi wëndeelu. doomam mi ñuy def recherche tey pour justice àdduna bi leeral ko premier ministre Sénégal nee na du fi jógee. waaw mooy fulla nag. waaw loolu mooy. Ah. loolu mooy ñun ñi fi indi woon CREI yi ne dañuy topp alal bu lewul am na ku bokk ci ñun jàppale woon ñu nangu ne neen yor na alal bu lewul mais kenn du ko laal. ba léegi la ma jox la beneen la muy jaar tuddul président Sall. non dafa ne maa doon financé opposition bi waxul maa doon financé une partie de l'opposition. opposition. waaw dafay leer tubaab la ñu wax. maa doon financé opposition bi manam fepp fu opposition bi doon dajé ñu war fa def micro wara def jël basse jël ay type jël à musique. di wax ndax na vous ko daw ko vous photo bi mu tok sol tout def ci biir podium yi. donc bu ne joxuñu ko mhm. utiliser nañ matériel fay activités mhm. président Macky Sall fa discours. donc il a utilisé logiciel bi ñi financé. yana a ay Amadou Matar Mbow. Mhm. muy muy assise nationale néna jox nañ millions. six millions. Euh, euh, euh, mm. na il a mais du six neuf la. Mm. donc y' a problème soit Amadou Matar day nax wala a mi dafa joxe six 3 mm. il a te protocole madame Faye. madame Sall. dara du ko ci licite wala licitul. lisitul créé yi lu muy topp xaalis bu lisitul hmm. kon mun na ko gis ci Penda mbaw mun na ko gis ci Amadou Matar mbaw mun na ko gis ci waa Y'en mun na ko jiis képp ku bokkoon ci opposition bi woo leen hmm. ñun sénégalais yi loolu lañ soxla nga xam nga la la Macky Sall def hmm. ku ànd ak moom mu protégé la dama lay jox benn exemple bu gën a garaaw rek comme tey Mourchid euh, euh, papa Mourid point info moo ñëw seet si ma Macky ban chef de religieux la njëkk a jàpp ba mu faloo

moom ministre bi moo ko yilif moo koy naan toppal wala bul topp. Mhm. su topp amul du yegg ci juge. waaw ah, est-ce que nag procureur bi moo ñëw nag moom euh, boobu moom mi ngi mi ngi woon Thiès est-ce que moom itam euh, du jël ay responsabilités boppam su déggee lu toll noonu nekk foofu ci euh, ci Medina Salaam du jël ay responsabilités bi nag ji ma dem nag. xool lu xew lu ñu tu ko laata ñu koy jox ay ndigal. mais forme indi sa loxo d'accord nag. Ah. léegi nag Lamine Diack mi ne. Ah. man maa jël xaalis bi lewul ana procureur bi. <laughs> lan ngay demandé ci procureur bi ko mooy ku bokk ci moom dina ko def jamono yooyu muy def loolu ci Cheikh Béthio mhm. Cheikh Béthio da doon jóge ci soutien fresh à Ablaye Wade léegi ba Cheikh Béthio toogee mhm. da ko tere cant kii sant Serigne Saliou sant Serigne Touba da ko ko tere waaw ba Cheikh Béthio ne léegi Macky Sall laay jàppale cantul loolu daal kilifa di ñoo ñoo ci dox ay jéego rek ah justice bi C'est justice c'est-à-dire la Ousmane Ngom Ousmane Samuel Sar, Medike Oumar Sar, vous leen réew mi. Macky Sall vous mu Ousmane PDS dematul ñuy def groupe parlementaire mu génn ci député Où au lieu mu nous ñu mandat de député dafa garder mandat inscrit non inscrit que rek avez tax parce que indi. Hmm.

waa Benno Bokk Yaakaar la léegi fa la bokk ana awa kenn waxatul kuddu ci senegal sama xarit la yéenu ma ko ñu jàpp ko mais boo bokkul ak Macky ñu ne wutal la koŋ la tëj la. ana Samuel. ana Samuel lan la fi wax Samuel benn Facebook rek la benn waaye posté ne. Mhm. Macky Sall gis nañ compte bancaire am bu am nangami milliards. mu def ko nga Facebook fi j'aime ak fi def partager. Mm. mu def partager <laughs> ñu ko journal ba de. Mm. moom mi mm. Omar Sarr lan journal Le Monde moo wax ne. Lamine Diack opposition mu ne bu dee la bu dee dëgg la. Macky Sall ni ñu ko falee lewul parce que xaalis bu lewul la sukkandiku bu dee dëgg la. est-ce que du tooñ Sénégal yi nag Sénégal yi ñoom voté Macky Sall euh, fal ko pare moom mu ni mu ni mu ni lewul est-ce que kon loolu. non waxu dafa bu dee dëgg la cest bu dee. Hmm. Macky Sall bokk na ci financement xaalis bu lewul. am na dama lay wax benn borom xam-xam mun naa jël Serigne Touba mun naa jël Ayamane Serigne Babacar Sy laa ci gën a am exemple mu ne meew bii ñu koy jox. Hmm. su ko wóoree ne xamul meew bi. nag biñ ko raté rujul tolu jamour ba mm-hmm. mm-hmm. donc mandou mm-hmm. yegg na ci président bu sukunduko ci sonorisation bi nga xamantene ne bu lewul bu russe ak bu dopage lañ ko wax sénégalais argent bi mu utiliser pour lolu lewul mune ne utiliser na argent dopage argent russe muy argent extérieur pour influencer ay autorités sénégalaises pour jox leen ñu nekk ci pendant élection mu ne dama ko fiy jëlee de 2009 à 2012 ba utiliser loolu. Mhm. yow sukkandiku nga ci li pour wuuti réew mi kon boo amee réew mi ci sukkandiku ci lu da ngaa war a démissionner loolu Omar Sarr argumenté ñu li ñu war a def mooy. Mhm. wone ne Macky Sall sukkandikuwul ci lu mais dañu koo jàpp tëj deuxièmement député Le député kenn nous ko écouter session Sénégal à l'Assemblée nationale ben parlement la ñu am session la y mhm. dafa deux sessions ouverture première session. Il mhm. dem besoin juin bien session ça a été réformé une session unique à assemblée donc le député il est interdit d'arrestation ou d'emprisonnement. Si mhm. mag Sénégal un député. même si son immunité parlementaire est élevée, c'est un parlementaire. bañ on n'a pas convoqué le bureau de l'Assemblée nationale pour ça donc Macky Sall moi def lu ko neex léegi nag loolu dafa am dakk dafa am dac. DAC, bi man dama ko décréter samedi bi passé le 9 janvier ah, m'a décrété trop c'est trop lu ëpp tuuru à partir de maintenant Pikine mm. ñun on a lancé ce mouvement trop c'est trop mm. on est en train de ñoo pour que Macky bu fekkee ne dafay defati lu ko neex ñun ñu def lu ñu te li ñu neex loolu mooy jaamaarloo ak moom dina gis lu lu raw lu xewoon Ukraine parce que mënatuñ toog mais ki ne man maa jël alal bu lewul man Russie mhm. waa Suisse di ko laaj ubbi instruction ne dëkk yoon la parce que institut international l'organisation organisation internationale pour l'athlétisme du monde bu dee yor na fa corruption 15 bu lewul ñun Suisse dañ ko war France ñëw

le recrutement ay nit yu mëna Ablaye pour fi Qui waykat la rappeur la qui homme politique la ñu dajalé cadre bobu ñi ay pour combattre nit mm-hmm. mais ñun mom nous def ñun. c'est que nak amuñu président russe bu mm-hmm. argent de dopage. Mm-hmm. suñu am. <laughs> mais ñun dinañ dajalé lu mel nonu uh-huh. dinañ wut ay waykat wut ay télévision de c'est pas comme comme télévision yi nga c'est la dynastie Ndour mon fa nek dañuy jël un Birima invité ko pour mu saga Ablaye wad on l'applaudit jël un Bouba qui ne connaît rien de la presse rien de la politique tek ko fofu muy khas politiciens oui pour le Sénégal war na changer politicien Le Sénégal war nañu un homme qui nga été day un homme bi nga xamante ci zéro la démarré comme comme ce qui s'est passé au Bénin euh, euh, commencé ci neen euh, dëkk Medina, donc loolu mooy travail conscience pour nous préparer à la future candidature de son frère qui n'est pas parti politique donc façon yo façon, nous arrêter il faut que TFM professionnel, nous fa cette utilisation de la doctrinisation donc de la conscience des sénégalaises à travers ben organe de presse. waaw déjà monsieur le maire gis nañ tam euh yow yaa ngi wax euh, lopu touru ba bëgg taxawal kurel ak yu mel noonu waaye gis nañ itam président Sall mi ngi dox jamm ñu bari wax nañ lool fan yi ndax euh, yow gis nañ euh, nga seeti Karim euh lundi passé ñu nga génn tek ci lu diir bu néew ñu bayyi seen gars yi yëpp bàyyi nañ leen fi mom dess ba Karim ak ñu néew ci ci kasso bi léegi est-ce que kon loolu tanki jamm la sa waay tek nak ngir ngeen mëna tok ndax euh, yéen nak ngeen tok jotaay rek jot na sëkk fi toll nii. oui mais mais c'est bien c' des à dire su fekkee ne euh, na ñu yegg ci turu ci turu defante bobu boobu Sénégal duñ tal liggéey. jàkkaarloog mom ni ñu jaamaarloo mom 23 juin à partir de 2011 ni ñu doon defante ak Ablaye Wade. Mm. ay sénégalais ñoko ko doon def. am bakkan yor yaram ngay door muy metti am bakkan ñu sànni la ñu koy dund mais ñu nit am nañ ko su bañee ñu def façon jaamaarloo bu mel noonu war na mëna bayyi lu ko neex def waxuma ku togn buñ la arrêté waxuma ku saga président de la République buñ la arrêté waxuma ku détourné xaalis réew mi bu la arrêté waxuma loolu mais nga jël ku ku ku ku tooñul deful dara nga tej ko parce que tiit nga ko tegoo ko fenn. Mm. un député qui fait son travail nga tej ko. un homme politique comme man jóg joxe xalaatam à travers interview bu mel nii am point de vue politique et philosophique nga tej ko façon yooyu bu ko day def il faut que ñu jaay ko suñu bakkan un deuxièmement man quelque part Cheikh la te man lii xasaayitu Serigne tubaab bi ab taalibi Cheikh laa man mii di wax ak mm. mais bés bu ma xëyee lii laa jaamaarloo. Mm. waa kër tubaab Touba Pikine ñoo ma ko jox. lii laa gëm dama gëm ne suñu kilifa diine yi dañ leen war a dañ war a jox gëdd. Mm. dañu njortu ne président Macky Sall am na ñu muy liggéeyal ñi nga xamante ne ñoom gëmuñu kilifa diine yi te am na liggéey bu Serigne Touba liggéeyoon ba duma ci tubaab bi. Mm-hmm. ba am ndam ci kawam ba la ko dara. mu dellu si ne baal naa leen. Mhm. surtout ñooñu ñoo jóg pour jaar ci ay sénégalais pour jàllale lolu, mhm. xex bobu pour jël sen revanche ci Serigne Touba. Mhm. jël sen revanche ci kilifa diine yu melni ni malik ak yeneen donc man d'accorduma ci euh, en tant que cheikh. en tant que cheikh ma nek ma neutre. dama am moo ma am conviction politique. ba ma bëggee jël kursi di lalu. lu ma ñaan yàlla def ko ki ma cheikhal Serif Adrame Ould Sidibia daf ma ne sa mission ci biir politique la. jikko yu yiw vertu ngëm conviction bañ fu tooy nga tàkk nga nga tàkk fa façon yooyu am nga ci mission ci biir réew mi moo tax ay misaal di ci feeñ xool bu rafet rek laa man mhm. takkuma dara xool mooy sama galaaj xool bu rafet nit laa laa sàmm man nit laa respecté ndax deret Seydina Mohamed su la su la amee lu mu am ndigal def la ko mhm. waroo neen ba ma seeti jee Karim Wade seeti Omar Sarr lundi. Mhm. mardi dañoo yeewu ñu bàyyi Omar Sarr. Mhm. sama waxtaan ak moom dafa ma ne Diarra da bari wax yow lii mun li ngay débat ni xaju fi da nga fiy si ñu am temps. Mhm. ma ne ko fan mu ne ma nga dellu si fii ma ne ko dama ñëw pour nga génn. Omar maa ngi wax nii su dee waxuma dëgg ñuy télé yàlla dina ma ko fay. dama ñëw pour nga génn. dootuma fi dellu ci xol bu rafet am na fooy egg ci am nga yegg ci yàlla du ci kurus kese. ak zikir am na looy liggéey ci doomu aadama yi. li maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon ne maa ngi xaar bés. ba yàlla fay wax bàyyi jëf. man li may jëf ci doomu aadama yi mooy sama yegg man ni may waxee yow nii doole laay waxee parce que dama nekk en baisse de tension. mais murit point info mënul jóge. nous interview bi may repousser parce que je suis fatigué. Mhm. parce que cordes vocales de dañuy jaamu yalla man damay mhm. Mhm. Karim. lundi bi bama ma cette Omar Karim ci biir semaine le Nations Unies réitéré na me muy ndam donc moi ma gis mooy libération modeste Sénégal. ñaar ban ban. le futur président du Sénégal japp na Karim dama ko jàpp dama am yaqin bi dama ko yëg dañ ko war a libérer. Ah. soit Macky Sall libéré ko wala bés peuple bi libéré ko. peuple bi hmm. libéré ko. te peuple nan lañ koy libéré. ñaar façon ñu dem élection. Hmm. mu nekk candidat comme bii ñu jëm ni ku ne ci ku ne ci ku ne ci kaso bi nu muy nekk candidat dañuy jël ce directeur de cabinet jox ko sa casier judiciaire sa photocopie carte d'identité légalisée. Hmm. joxe sa caution. Hmm. yóbbu ko conseil waaye xam fàtte référendum bi ñu am ci euh, euh, part de responsabilité ndax euh, ñaari nationalité yi am ca bokk na ci biir yi ci def ko dem oui comme Ablaye amoon na famille deux nationalités sauf man. Hmm. parce que man Sénégal. dew ma fa sama papa mu ngi France. waaw ah. ah treizième bu candidat kon. no dama lay wax rek. Hmm. dama lay nationalité. Hmm. Barthélémy Diaz américain la. Hmm. bés bu nekkee candidat dina ci tànn benn. Karim bés bu nekkee candidat dina ci tànn benn loolu ça ne pose pas de problème bàyyi naa bii parce que sama réew nee nañ benn laa ci mën a tànn pour ma mën a nekk candidat te dama bëgg a nekk candidat bàyyi naa bii jël seen bos. loolu yomb na du dara loolu këyit la booy bind yóbbu. loolu du obstacle c'est que loolu lañ bëgg moo tax ñu koy weñ mais Karim sera candidat may wax ak sénégalais yi ne leen candidat bi ñu tëj kaso. ci nu dul yoon yéen boo leen jàppee ne du yoon bés mën na nekk biir kaso bés bu nekk ngeen ne ngeen dégg ñu ne Karim nee na. te moo ngi rëbës. presse yëpp a ngi page Facebook yaa ngi fi direction de campagne mun na yeewu mu ne monsieur Amadou Diarra c'est mon chargé de communication. c'est mon directeur de de campagne. kon man sais pas déglu sama wax waxam la. koku moy dem déposer casier judiciaire am ak dossier de candidature. bu ko constitutionnel, constitutionnel ministre de la justice euh, Kaba euh, a perdu hmm. Karim ses droits civiques. et politiques. Hmm. d'accord donc te moy ministre de la justice. ensuite xam par rapport à la constitution au code pénal hmm. euh, Karim perdu ko. parce que topé wuñ ko détournement de deniers publics topé wuñ ko corruption kon kon bu fekkee ne mën candidat na Sénégal yi xam ne c'est pas parce que Ablaye Balde seeti ko wala Idriss Seck seeti ko wala hmm. Malick Gakou seeti ko non non Karim mooy sunu candidat. candidat bi buñ ko déposer. dina am bulletin. Hmm. photo lañ ko ciy def. soxlawul ngay dem rëbës boo demee ci internet rek mën nga am photo am. Hmm. assurément photographe mën na ko fekk ñu defal ko photo bu rafet. d'accord donc nañu xam Karim day nekk candidat au à la prochaine élection na ko sénégalais xam. ñu bëri nag benn mag daf ma wax ne. Amadou Diarra man de élection bu jot Ablaye Wade laay wateel mais ren xaw ma ku may wateel parce que tëj nañ Karim. Mhm. ma ne ko may wateelal Karim mu ne ma ndax mën na ne ci laa jàpp ne kon sénégalais yi ñoo ngi posé wu cette question. Mhm. donc day baax ñu communiquer ci wax ne nit mën na nekk kaso bu ko sénégalais yi falee mooy atte nañ ko. yéen li jaaxal sénégalais yi mooy. yéen nu ngeen mën a jàppe kenn nit ku ne ci euh, kaso kenn nit rek mu xam-xam ci koo xam ne war naa mën a jiite seen parti bi ndax Omar Sarr a ngi fi di coordonnateur bi ñeneen ak ñeneen a ngi fi ngeen ni Karim rek Karim Karim Karim Karim yow waxuñu Karim tax loolu xam nga xam nga tey jëlal tarixa yi bés bu ñu demee ba am xalif général hmm. duñu wut keneen te pourtant ñeneen mën nañ ko doon dañuy xaar ba kooku jóge fi ñu seet keneen hmm. mais ñun ñoo daje ne Karim ay suñu candidat mais moo ngi dund kaso bi mu nekk teroo ko nekk ne la ñuy seetee keneen su PDS tase yi na ko tas puisque euh, gis nañ euh, Ndéna Ndiaye bi ngeen waxee loolu la génn moom tamit gis jaañ Diagne Fada jóge na fee. li mais attends man bu Karim bu ñu faloon Modou Diagne Fada candidat man ma bàyyi PDS. ah pourquoi. mais moom dañu fal Karim mu bañ. dama la bëgg a wax ne ku ku nanguwul ba la neexee bañal. man bu ñu newoon tey Souleymane Ndéna Ndiaye lañ jël est-ce que Omar Sarr du est-ce que Karim ci boppam du ba. il faut que bu ñu tànnee kenn am ko mañ. léegi nag ñun ñi ëpp. ci parti bi à travers un congrès voté ñu tan Karim. Ligue, di ñu seetloo keneen sax day mel ni ñu tan suñu xalif ba paré ñu né nañ ko remplacer ñun suñu candidat Karim la point. Ligue, nak bu démé ba Karim déposé candidature au conseil constitutionnel ñu ne du fi nekk té téguñu ko fenn. ñaar lañ mëna a am. ñu sét keneen. ba ñu wacc ci mi né par force day nekk candidat jël suñu bakkan fekk Macky Sall palais ñu nekk nak fo teg nak trop c'est trop. Karim yële ni seen ah no, dafa ndànk ma wax la ñaata nit ñoo dee pour que Macky Sall falu na ñaata Mamadou Diop a ngi fi. 23 jours ah, yéen lañ ci taqal de. voilà très bien gis nga loolu il faut que ñu xam benn mbir. Hmm. Mamadou Diop su fekkee ne dañu dem ci benn manifestation bu organiser. Hmm. ñi ko organiser lu fa xew ñoom la wala. waaye kan ñeen wax ni gis nañ seen oto moom ñoo ñoo oui mais xam nga suñu oto président mooy procès Gbagbo bi xew ni mhm. wala mhm. procès Hissène Habré bi. Mhm. c'est-à-dire Ablaye Wade duggul ci oto dawalul oto. téléphoné wul chauffeur ne ko waa jooju di tudd Mamadou Diop fekk ko fa fiir ko. ñu ne moom la. c'est-à-dire li ñuy wax ay exaction day am. gis nañ fi policier jàpp nit mankaan ko dugal ko ci maal oto yóbbu ko ubbi mu dee. est-ce que le ministre de l'intérieur l'a dit est-ce que commissaire Baye ko ko sant. mais ci nguuram la fekkee. Macky Sall ñaata nit ñoo dee ci un fi. ay policiers ay ay ay des étudiants mais ça pose problème est-ce que bêtement Mangane... non président la loolu waxi politique là. damay wax Ablaye Wade jamono ñooñu un tere ku marche place de l'indépendance parce que dafa jege palais kenn ki ñuy wax Abdoul Aziz Diop jamono ji ci porte-parole Macky la bokk xaw ministre conseil. Mm. Le né conseil constitutionnel accordé na candidature Ablaye Wade dafa jël micro bi saaga na sax né dañuy dem palais mais imaginez bus bobu la affaire bi éclaté Aziz Diop bobu gis naa ko benn émission def na Lamp fal TV la xaw Touba mu nan Sénégal il faut que ñu jang respecter décision de justice mais mais qu'est-ce qui se passe conseil constitutionnel lu ko gëna institution de justice. Abdou Aziz bi mo waxone déclaration bi né valider na candidature Abdoulaye Il bay appeler à la résistance pour attaquer le palais ce même Abdou Diop se permet toog dans une émission trois ans après di wax que les Sénégalais doivent apprendre à respecter une décision de justice waxtu baax ñetti question rek ñu mais mais des na ñaari libération bi. Karim la waxone lañuy ñuy benen bi te libération bobu waxna la ñaaro koy def. Macky moo koy libéré le peuple bi libéré ko. Ah, ñaareelu libération bi mooy le Sénégal. Hmm. le Sénégal doit être libéré. Sénégal fu ñu ko tëj. fu ñu ko tëj képp ku képp ku nga bokkoon ci complot bi doon xeex Ablaye Wade sur le plan international. Hmm. barki démb laa dem France COP 21. benn sénégalaise bu nekk ci benn banque bugguma tudd turu banque. Hmm. ñu rencontré ay maire Pikine lañ doomu Pikine la mu ñëw ñu seet suñuy waxtaan.

français yi dañ koy xëccoo yor ko wala américains yi yor ko mais sénégalais du ko gaz bi c'est la même chose jëlal autoroute à péage ça saa yu ci yéegee yaa ngi dundal yaa ngi yaa ngi dundal France ça hmm. yu ci jëlee essence yaa ngi dundal France vulcanisateur amul ci yoon bi soo paanee dañ lay buddi yóbbu nga fayaat quinze mille yaa ngi dundal France amul benn espèce de yërmande c'est de la colonisation économique hmm. aujourd'hui hmm. les góor jigéen commencé nañ di def seen promotion fii ci Sénégal mu neex la mu naqari la tenue yi ñuy sol ña koy sol di ko wane sax soo matul dañ leen def vedette fay leen pour que ñuy porter seen i yére yooyu pour que xale yi góor yi Dakar Sénégal di wàccee seen i pour ñoom góor jigéen yi bu ñuy wàccee seen tubéy kenn du leen ko jàppee ñu rax ci biir. Hmm. loolu stratégie la les États-Unis bu ñu bëggee jaay industrie de ay ay ay trëy hmm. mais dañuy français benn film jox Rambo wala Conan musul trëy def ci lu mel ay paaka ray ñëpp. Hmm. xale yëpp bëgg a mel ni moom wuti trey ñu defar usine trey di jaay. Hmm. inonde ko Afrique Asie jaay ko usine bi di mars ñoom ñu ciy dund Sénégal dañ ko war libéré. Hmm. ni ko libéré Arabie Saoudite woo Koweït woo Chine woo Inde woo Dubaï woo France woo États-Unis ñu am indépendance économique. non lañ ko libéré aujourd'hui base militaire française, yi ba Macky Sall daf ñëw indiwaat leen sampa drapeau France le Sénégal est recolonisé sur le plan économique sur le plan politique et même aujourd'hui sur le plan sociétal c'est les mêmes convictions loi beau est la France Un mhm. mariage pour tous am na Sénégal ay société ñoo koy ay USAID ay euh, ONG yi avons ci des basé de jeunes di a des ay passeport mhm. di leen voyageloo def ay émissions télévisées di y ci des ba ci ay téléfilm ko nit cette colonisation là mm. il faut que ñu am une nouvelle révolution ñu gëm comme ni Karim gëmoon ne mm. yoonu Touba bi dañ ko wara a yaatal deux voies aller deux voies retour en 2011 mu régler financement bi route Thiès euh, durbel Touba qui sera véritablement une autoroute je ne veux pas concurrencer les, autoroutes de Madame, euh, de Madame Niam. La seen bari feem gi deug deug nak mi ngi soga a mm. yeen euh, president indi euh, ay xalaatam indi gis-gisam def autoutam ila Touba wa Touba ñepp d'accord senegal gep d'accord ni gongo ngeen bëgg a dikk momale ko Karim wad ama ah, man dama ci am mu naale won ben vidéo ma Karim mo ngi rëbës wa nekul meridien mun naa la mm-hmm. mm-hmm. vidéo bu Karim tok meridien vidéo bu Karim route Thiès Durbel Touba qui sera véritablement une autoroute. Enfin, je ne veux pas concurrencer les, les autoroutes de Madame, de Madame Niam. La muy wax Ablaye Wade ne indi nañ fi financement pour euh, Thiès Djourbel, Touba ñu élargir autoroute bi mu nekk une véritable autoroute autoroute la wax Thiès Djourbel, Touba. Mm. financement boobu ba mu koy signé chinois yi mu àndoon photo bi mun naa la ko wan. Mm. ñu toog ñu signé ko. Macky Sall ba mu waxee Ila tubaa même chinois yooyu la waxtaanal mm-hmm. Ila Touba bi la ci yokk. ak mm-hmm. lan Karim dafa ne woon autoroute la koy def murit bu bëgg a dem màggali dem Macky péage la ko def maanaam murit yi da ngeen di fay doog fay dem mm-hmm. ñaari différence yooyu moo am. non nguur la. waaw mën na mooy. Mm. kii wuuti na ko ba indi ko yéene ko yoonu murit. ndax Karim taaliba murit la. Mm. si Cheikh Mati lay nee na doomam la baam da ko dénk. am na lu mu def lu mu def guy mbind ñëpp xam nañ ko. Mm. am na lu mu defal Cheikh Seye Mati lay boobu nekkul sa xalif. Kër Kër Nganda xam nañ ko kon bu nekkee wut na xalaat ak ay moyens jëli ko bitim réew dans la coopération internationale ba yóbbul ko Touba ne autoroute une véritable autoroute kii ñëw ne dootul doon autoroute mais autoroute à péage lay doon. tuddee ko Ila Touba am na lu mu bëgg ci murid yi muy benn seen koom boobu parce que murid surtout sa dex yi dañoo gëm ba. buñ leen ne woon ngay dem Touba dinañ jël bi avion dem Touba comme xam nañ ko nak nañ utiliser seen conviction yoyu jël xaliss ci ñom dugalaat ko ci gafa yi oh, alors que Karim vidéo baangi ni nii mun la ko gënël route Thiès durbel Touba qui sera véritablement une autoroute enfin, qui ne peut pas concurrencer les, les autoroutes de madame de madame Niam la construction de la route Bakel Ourossogui et la construction ay nationaux sont fi même expertise bi plan Sénégal émergent bi ay Sénégal. route Thiès euh, durbel Touba qui sera véritablement une autoroute je ne veux pas concurrencer les, autoroutes de madame euh, de madame Niam. la coloniser dañ koy yew sur le plan sociétal ñu fi jall affaire ay droits d'adoption jall voté nañ ko assemblée nationale. Hmm. tay mën nga nek adopté loi boobu voté nañ ko fi assemblée nationale. non ñun euh, réew laïc lañ nek laïcité la ñuy la dund ndax euh, yeen ci ngeen ci ngeen ci ngeen nekkoon. bi euh, bi président bi ñu itam moom la continuer. mais ci lañ ndax tey mën nañoo jàpp ni yow da nga bëgg ñëw pour bëgg a xeex loolu. waaw laïcité bi dafa dafa doxul wala. gis nga laïcité bi. ci suñu réew ñu. dama lay jox benn sur la géopolitique internationale. boo hmm. ko dee suivre. Hmm. xam nga Macky Sall dooleem toll ni doole bi Wade amoon. Macky Sall toll dooleem toll ni doole bu Moubarak amoon en Égypte amul doole bu toll ni benn Ali amoon dañ leen song daan leen te ay experts la ñu toog ñu dugg réseaux sociaux yi di fi jàllale ci message ay jeunes yi bay wàccaloo leen ci mbedd yi ba dàq président bi danañ mm-hmm. arme bi ñu dal di jël ay armée di dem di def coup d'état yooyu xewi na mm-hmm.

mos franc-maçonnerie boobu étudiant laa woon soif xam-xam dëñ kumpa dugg naa ci ba ma xamee lu mu wund dama ci génn ca lañ ko meree. Mhm. nee nañ président bu toll nii Abdoulaye Wade bu waxee loolu ak ni ñu koy dégloo ci àdduna bi dina dina leen dina leen sànni xeer. Mhm. donc dañuy jéem a fayu nan la ñuy fayoo juróom-ñaari at ci kanam yàkkamtiwul dinañ seet kenn ca réew ma dooleel ko ba bu dikkee mu ubbil ñu bunt yi lañ bëgg a jàllale koom bi dinañ ko am.

bay bay ñëw toog ci souf jox gëdd xalif général des mourides mi touba bi songol mo am dam man waxuma ko parce que je suis mouride je suis Tidiane moi Cheikh mm. Ahmed Tidiane Sy Al maktou mooy sama serigne mais suñu démé ba Serigne Touba am ndam ba jël tay président de la république mm. pas suñu avion pas suñu kérosène ak suñuy mooy délégation dem fa taalibe jëwriñu yonentu yam bi sallallahu alayhi wa sallam muy xaadim rasul mm-hmm. tey lay doog a titre bobu ma gis ko tey léegi seen ñun suñu génération war nañ xam ne sikki sàkk amatul ne titre boobu Serigne Touba am na ko. Hmm. maanaam moo ko moom xaadimu. rasool hmm. ñun suñu génération lii dal yonent bi dal ko. lii dal yonent bi sallallahu alayhi dal ko. Hmm. dafa am benn connexion bu mu am. maanaam nit ki boo ba bëgg ko ba takk ko am na lu ko wax xuri lii bu ñu caricaturé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñuy dem at ñu caricaturé xaadim rasul bëggam yonent bi jeex na. Hmm. wàcc na. Hmm. kon li tax ñu mun ko def fii ci senegal murid yëpp di marche. Hmm. autorité politique yëpp dem teew. jaralul kii nga jógee Addis ba ñëw marche ci dakaar te mu jaraloon nga jóge dakaar dem marche ci soutenir sari c'est c'est extraordinaire xamatuma ci dara. te yow. Uh-huh. te yow sa ki nga remplacé. dafa dem jël li Senghor joxul won Serigne Touba jox ko serigne Modou Moustapha jox ko serigne Fallou Abdou Diouf jox ko serigne Abdou Abdoul Ahad muy titre foncier Touba ablaye wad don talibé Fallou jël gouvernement am yëpp dem Touba jël titre foncier jox ko Serigne salew muy dom Serigne Touba bu mujj ci kaw souf lolou jeexal na ci donc tey murit buy ndamo lolou mhm. président ak limi muy représenté ci réew mi Serigne Touba waxone ne bu mu bu fi naafeq yéefar bi jógee naafeq bi jog bi talibé Fallou ba faw ba tax ñenn ñi di murit muritlu tay sëñ Bass Abdou Khader ñaari président la cité. hmm ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ba fay ñew muy président Guinée bi mo waxoon. ak mm-hmm. président Gabon. Mm-hmm. mais suñu président Sénégal su ko ko jaraloon dina joggé feulé dekk ba mu nek ci. Addis Abeba. Mm-hmm. daw si ñew fekkee pour woné né naqaru na loolu mu def Jeune Afrique. Euh, référendum bi ñi waaj voter euh ak laïcité bi ñu ci bëgg a

ay réforme constitutionnelle la réforme yooyu bel et bien jaar ci voie parlementaire mm. député yi saytu ko dindi ci lu leen neex wala yokk ci lu leen mm. mais boo ko référendum benn élection lay nekk oui ou non ah. waaw wala déet loolu kay avez mooy liberté nag su fekkee yow soo soo doyee waaw man su ma doyee su ma doyul ma ni la tey la ma bisaab mm-hmm. ñeex mm-hmm. ñànkatañ mm-hmm. ak ceebu jën bu la gënal da ngay wax waaw wala déet sañ na maa tànn ceebu jën ni moo ma gënal waaw daal waaw daal di ne waaw ceebu jën moo la gënal waaw léegi bu ñu la indilee suppu kànje ceeb a ngi ci mun nañ ci def jën piège bi mooy Macky Sall dafa indi suppu kànje boo nee waaw ëllëg bu la xañee ceeb danaa la yaa ma yaa waxoon waaw du la jox ceeb parce que tànnoo ceeb ni muy li may la bëgg a tekkil mooy. Mhm. ci quinze points yi. waaw ah. dafa def benn supp kànje buy mu ne laïcité laïcité. Mhm. Égypte bi ma doon wax bu Moubarak. Mhm. ak Tunisie. bu Ben Ali. ba ñu defaree seen constitution bu bees dind ci laïcité. gouvernement ba fa nekk 6 mois après dañ leen a daane. dañ leen a daane. koy tabaxaat dañoo ne laïcité bi delloo leen ko ci yi delloo leen ci laïcité yéen dëkk arab ngeen. droit de la femme delloo leen ko ci. Mhm. parité delloo leen ko ci. liberté d'expression maanaam li tubaab yi gëm dañ ko delloo ci constitution dëkk yi nga xamante ne ba fa Ben Ali di am amul fa woon mhm. ba fa Moubarak di nekk nekk fa woon ñu delloo ko fa gouvernement bi nangu delloo ko ci te faluwaat nii dañ leen a bàyyi jàmm.

képp kuy gëm li France gëm liberté d'expression yàlla buñ ko dugal suñuy mbir diine nañ ko teg fële nañu indi laïcité droit de la femme. Mhm. jigéen a góor tant que yaa ngi gëm yooyu dañ la fay bàyyi nga may jàmm parce que yaa ngi leen liggéeyal kon suñu président lu ci yoonam ba muy wax laïcité bi fi nekk Senghor bàyyi ko fi Abdoulaye Wade bàyyi ko fi Abdou Diouf bàyyi ko fi yow doo ko fi bàyyi rek mais moom dafa ne ci 15 points yi laïcité bi nañ ko verrouiller nañ ko daaj ba mu dëgër. Mhm. ba ëllëg bu fi jógee moom. yeneen président yi ñëw fii ñeent fukki at juróom fukki at téeméeri kenn du am sañ-sañ xool ci dara loolu mooy sama gars yi maa ngi leen di dëgëralal yéen dañuy teg laïcité ñii di dindi yooyu man dama kaa verrouillé. léegi seen dëgg sarax googu. léegi léegi loolu. su ko wotee murit sadex bu gëm ne ci école sénégalaise yi dañ ci war a dindi laïcité dugal fi njàngalab Serigne Touba. Hmm. dootu ko mën. Hmm. c'est fini verrouillé nañ ko murit boobu su bëggee su bañee voté loolu lu muy wote non non bu wotee non mooy dàq na loi bi Macky Sall bëgg a indi. Mhm. dàqaale na Macky dafay war def juróomi at. parce que Macky dafa ne ci même loi boobu. na mhm. ñu nañu nañu nañu lay laïcité bi. Mhm. mais tamit settant yi ma waxoon ne dama koy wàññi juróomi at wàññi naa ko te ci biir laa koy doore léegi boo nee non ndax laïcité bi nga bañ. newaale nga non bul def juróomi at. defal juróom-ñaar bu defee mu ne ah, ay la yéwén man de dañoo dàq noo bi. te li tax ñu dàq noo bi li ñu ci laal diine. dañuy tax ñu dàq ko pas juróomi mm. ñoo ñu wote noo bu doon seen sogo mu def ñetti at. lii lan moo ci war a nekk seen taxawaay yéen. ndax waa Touba moom daje nañ moom ñu bëree bëri nee nañ moom d'accord ñu ci laïcité bi. ñoo ngi liggéeyal Macky Sall nag dañ dañ cee wax doole ni ku su bis ba na ñëpp ni non. léegi bu ñu nee non mooy jàppale nañ Macky Sall pour non bi jàll. waa APR Moustapha Cissé Lo bi wax 80 pour cent APR ah fal ngeen ma juróom-ñaari léegi juróom laa koy def ñu ne ko non non defal juróom-ñaar après xam nga lu muy wax. Hmm. sama dëkk ma bëgg. indi naa fi koom maa ngi rek dëkk bi namm nañ ma ba bëgguñu ma def juróom-ñaar ah bëgguñu ma def juróom doyaluñ ci man bëgg nañ ma def fukk sax mais wateel nañ ma juróom-ñaar. lan moo war a doon seen taxawaay yi nag suñu taxawaay mooy. wax ñoo ñu di wax non. Hmm. nañu watee wii gàttal nekk nam fii benn xaaral bu ñu watee wii ba pare. <laughs> président bi ñëw ñëwaat référendum bi nga xamante ne mbiru lay laïcité rek la laaj hmm. suñu suñu nous ñu nous wax oui, qui di bëgg verrouiller qui mhm. est jël engagement ci campagne bi man laïcité bi sénégalais yi lu ou pas verrouiller. Mhm. mais nous wax non nañu def attention ki leen indil mbiru non. ki leen indil homosexuel ah. buñ la ñu libéré la. imam bu bu beaucoup mel jigéen ñi mel leen ni soxna yonent yi meloon góor ñi mel leen ni yonent bi meloon boo ko waxee ñu ne la yow terroriste nga jàpp ci kaso bi seeti naa fi barki démb imam bi nekk rëbë Cap Manuel ça pose problème jamono jii loolu moo fi nekk ci emprisonnement kon nañu fexe ba ki ñuy indi loolu climat boobu ñu indil ñu ko fi na ñu fexe ba moom ak régime am ñu jóge fi indi fi ab taalibe bi nga xamante ne dina am fulla jàkkaarloog tubaab yi ne leen li ngeen nekk ci ay ngëm-ngëm ñun Sénégal fii nekk ci ay ngëm-ngëm yooyu mun nañ sukkandiku suñu ngëm-ngëm développé. Mhm. indi xam-xam tey boo boo boo gisee jàngatu Serigne Touba lu mu bindul. lu mu bindul ci xam-xam dañu defe ne xasaat waaye nii rek tàgg yonent bi dégg bind na astronomie tey bi ngeen nekk euh, ci ci ci ci ku jég yi li ngeen wax lépp yow yéen amoon ngeen euh, possibilité def ko ci defu leen ko def ah Ablaye Wade Ablaye Ablaye Wade dafa fi ko fi indi non parité non parité non non non parité parité uh-huh. beaucoup ak égalité homme femme uh-huh. parité mooy uh-huh. cercle de décision yi bu ñuy décider nañ fa bolé jigen ñi pourquoi ba ci mairie buñ ci bolé jigen ñi nga am maire adjointe au maire ainsi de suite jigéen ñi bu ñuy voté ñu voté pour que cercle de décision yi comme ñu ëpp ci dëkk bi ñoy voté té ñu ëpp ci dëkk bi ay jigen lañ fuñuy décider dañ fa wara féké un mais du tax so des ministres bu do bu am bu am jëkkër sa jëkkër nekul ministre na nga ko tarbiyu ndax mooy sa wasila mooy sa kilifa loolu bokkul ak parité mais ñii li ñuy indi ci laïcité bi mooy jigéen égalité lay doon cër bi am góor tey bu fekkee ne laïcité bi am na doole ba ñu indi égalité yàlla bu nee miraas góor ñaari cër jigéen benn boo demee attalu ci senegal fii ñu ne dañ laïcité la tribunal di atte nga xuloog sa mag bu jigéen wala sa raq bu jigéen ci seen ndono boo leen yeggee tribunal yemu leen ci imam bi mm-hmm. billahi fi Sénégal depuis Senghor ba légui lim lay atté moy ben ben ben ben lolu luko waral. Uh-huh. laïcité bi moy bu len atté wo ci yonent bi salaahu salaam lim len fi indil yoonu l'islam pourquoi parce que sóor leen ne ñeneen ñeneen nañ fi. Mm. donc ñun ñep ñogi atté wo ci yoonu France te France amul diiné motax di jima virio laïcité bi te ñu am preuve te nit ñi li len wara a personnellement moy ñu fexé nan lañu dougalé ñangal Euh, euh, euh, taysiiru alaaji Malick si mm. fiñ ko borom xam-xam yi wékk ci ci li mu ëllum ëmb duñ mm. ko jàngal suñu doom yi buñ commencé di def primaire ba doon la ñuy def secondaire mm. wala université mais ay Cheikh Amadou la ñuy bindal c'est vrai mais xam yi ko gën a garaaw mu ngi fi ñoom Thierno Alassane kii bu bu bu bu Sokone nu mu tudd dem ñaata ñaata xam-xam la ñu yor ñaata bibliothèque la ñu bind ak encyclopédie lu tax duñ ñu ko jàngal donc ñun fi ñu jëm mooy fexe ba laïcité bi ñu dindi ko tey laïcité bi yemuñ ci tey chrétianisme la ñuy dund fii ci Sénégal dimanche mooy suñu jour repos. Mhm. te ñun àjjuma la am wala guddi àjjuma. kenn waxu ko. feet yëpp feet yëpp feet yëpp. yi mhm. ñuy def fii Sénégal euh, chrétiens yi seen feet la donc. Uh-huh. li ma bëgg mooy ñuy wax dañuy wote non parce que bëgguñu laïcité bi. Mm. erreur la. yéen yéen est-ce que mun leen xeex nag ba lii mu génne ko mu mu mu ne n'est-ce pas Macky Sall jarul sax muy dem référendum pour wàññi mandat am day toog wut seen xeex war a nekk nag non mais mais essayé ñun suñu xeex mooy génne Karim te jël na ko tëj moo ñëpp doole peuple moo am doole te dafa ne yàcc na yeesal boo leen woowee du ñuy génn donc loo mën rajo nga mën a wax ak télé donc li ñu mën mooy ñu wax leen ne yéen a ngi def erreur def erreur fii juróomi at di ko rëccu

Nous faisons nu ñuy def ba fexe ba njàngale Sérigne su Nous si ñu jàngal si borom xam-xam fi nekk ku ni ay Cheikh ñu unité africaine am hmm. un gouvernement continental suñu richesse en tant qu'Afrique qui à la cercle euh, au cercle des nations dans un même micro nous hmm. ñu ñu ñu ñu Abdoulaye du ci xaaj. waaw ndax dañ ciy jox rek ndax ndax fi mu moom. gis nañ ni tàmbali nga bi ñu tàmbalee gis naa tàmbali ngaa recul di daw di daw res naan doo duñu jox lii duñ séddalee ndax ñun ci parti bi lañ bokk nii lañ bokk waaye nag maire bi nag wax dëgg yàlla yàllaaj maire bi jox nañ la ko foo ci toll ci liggéey bi fi mu toll fi ma ci toll mooy soo leen paree seen caméra ngeen ngeen balee bureau bi aw ma bureau hmm. chaise bi gis nga amul sax wéerukaay gis nga gis nga ba ma faloog léegi topp waaw ma sama bopp hmm. Mme luxe bi ñuy def fii su doon ngunu sama ma ci xel mi am solo. Mm. première action. Mm. juma ji ci marché je wuti ciment joxe fa. Mm. bi juma ji que la ci biir 400 mètres carrés. diine bi ñaan ci yalla def ko sarax yonent bi ne ko ñaanal ma ngir jublu ma ci la ci yow sa la première chose deuxième chose catégorie sociale yëpp. Mm-hmm. ku ci nekk laal naa la. sportif yi laal naa mm-hmm. santé bi laal naa ko. Mm-hmm. éducation bi laal naa ko. Euh, sportif yi laal naa leen. Euh, ñiy def football laal naa leen ñëpp domaine bu ne. jeunesse bi étudiants yi élèves yi. ñëpp laal naa jigéen ñi ñoo ma dese. jigéen ñi laa defalagul ay genre financement dañ ko bëgg. trop leen di nax ci politique naan leen kaa top topp moom moom jox leen financement. ma leen di wax ni bu leen surtout Pikine. jigéen ñi ñu bàyyi ñu leen di naxee xartum ak t-shirt man politique boobu ku koy xaar ci man doo ànd ak man dañuy respecté suñu bopp. Mm-hmm. financement boo ko bëggee wutal sa carte d'identité nga yóbbu ko ci banque bu la neex commune Pikine Nord bi am na 15 banques fi yóbbu ko ci banque bu la neex nga am sa financement 5000 ngay ubbi joxe sa photo ñu ubbi la compte dama bëgg a liggéey ñu lebal la 100000 boo liggéeyee delloo ñu lebalaal la mm-hmm. politicien bi da nga liggéey mu fay ci intérêt. Mm. su soxlaa kaar yóbbu la. Mm. soxlaa naaj yóbbu la. Mm. bu la joxee tuuti na mais attends bul ko soxla donc man dama bëgg indi modèle bu bees ci doxaluñu islaam lebal femmes lu amul riba lebal leen lu amul riba. parce que man man nabiyen la man Muhammadu sallallahu alayhi laa gëm dama ko sopp trop ba modèle de gestion bi mu wax. su ma amoon doole ci réew mi jeexoon na bu yàgg. jeexoon na bu yàgg modèle am laay laay toppatoo démocratie charte ak constitution ni mu ko jëlee laa koy indi en micro d'état applique ko fii ci commune bi. waaye fonds yi nga war a jot muy jóge ci président yëpp ci ci euh, gouvernement bi yëpp mi ngi mi ngi ñëw ci yow moom. mais attends man maay jël ci suñu koom. Mm-hmm. jàppale maire APR man. Dominique bii ñu wax ni samedi ñëwal dinañ voté commission euh, voter budget bi. Mhm. décidé le maire Timbo woo ma loolu dañu wone ne ñun Pikine lañ ñëpp ay doomu Pikine lañ. Mhm. ay doomu maire bu mhm. euh, pour mu fay fay leen wër ça pose problème ay juroomi wër lañu tok kenn du leen fay. mais bañu woy wax ju ko ñun dañoo faire fale PDS bi décidé jël 6 millions jàppale pour fay nous bu Nous pour mais solution. parce que amuñu ko. mais Pikine la mënul seetaan. yaa xam ban parti nga bok. Y'a xam maire bi fan de faire mais Macky Sall mi maire xam li maire. maire passeport diplomatique Nous mu hmm. un passeport de service D'accord? Macky Autos, yi Ablaye wad doon joxe. Mhm. Pajero pour tous les maires. mom mhm. dafa joxe auto def ko AD. pas pour les maires pour mhm. mairie bi la. maire bu falo ñu jox la auto AD nga def juroomi maire bu falo noy def dañ lay jox bu 5 ans moy amortissement problème mu la 500000 la doon fay. maire commune bi Dakar fi de Sall ñëw def ko 300000 dag ci impôt. 295 000 296 si dee maire bu am ñeenti jabar doom yu moom nga ça pose problème problème de xol la y' a même pas de différence aujourd'hui avec Macky Sall ñëpp d' nañ acte 3, c'est un blocage nañu nangu rek. bañ a ñëg yóbbuwaat ko assemblée ko joxaat maire yi surtout Dakar. mënul yem ak maire mba doxul. Pikine Nord bii mënul yem ak plateau. Hmm. bokkuñu ay milliards nangam bokkuñu donc ce li je veux def communauté rurale a un budget de 300 millions. Mhm. te mu nek des ressources propres. déclaré la mën déposer sa candidature pour passer de l'étape commune, commune rurale à l'étape commune. Mhm. mu une émulation. communauté rurale bu ci am ay partenaires de financement, au lieu folklore la dem tabax un marché mu indil wala ben gare bu ko un budget si bu yokkee ba nga xam qui commune la charge commune mais ñëpp yew rek nga fattasu rek ne ñëpp maire lañ ñëpp wara tolo salaire fi may wax ak yow billahi lazi def leen enquête ci loolu man maa ngi fay 16 millions par weer et quelque am na maire yu mënul fay 2 millions ci àll bi benn nit mënuñu ko jël ko fay weerum dee benn nit ay maire laa la wax ci Sénégal lii lu ma daf la war a tiital da ngeen ci war a def dossier spécial dem ci dëkk àll bi am na sama benn xarit maire euh, jigéen la euh, APR le bok hmm. dafa ne man je suis appauvri par l'acte 3 né nee na ma mënul tok safaaram feureum mu fa fek mu koy dawalal ñu né président communautaire bi la doon dawalal. Hmm. budget bu bess bi mënul fay waajooju mënul fay secrétaire communautaire et comme mairie la waratul am un secrétaire communautaire mais secrétaire municipal la war a un mm-hmm. te bu amee secrétaire municipal salaire am dafa war a yokk. te moom munul fay waa ji munul fay chauffeur bi léegi nan lay chef de division recette chef de l'urbanisme habitat environnement éducation mais c'est pas possible a pas amul marché amul dara. taxe rurale la doon Le mm-hmm. président Macky Sall yeew rek sur un coup de tête dans acte 3, dignité communautaire. 3 ku a ne ko il y a région nek région département département commune commune ay moyens yu mhm. mais l'erreur monumentale et historique c'est l'acte 3. nañ ko que solidariser d'abord mënuma wax info de mettre caricature yi mhm. mais di ci am né Serigne Touba euh, encore une fois pour man talibé Cheikh bi que mhm. gratu khadim rasoul bi. fësalaat na ko ndax lu ñu laal xaritam bag soppeem bag dal na ci moom mooy caricature mais dañu xamul ne waaw ñooñu xamuñu mais dañu xamul ne man yëg bi ma yëg ne dinañ ko faj ci bu gaaw hmm. waxuma ci ci ci zaahir ci baatin yàggatul nañ ubbi suñu bët ñu xool Jeune Afrique man loolu leer na ma moo tax ma bëgg nit ñi woo leen ci dal kilifa yi ko géré ñu top leen ci nonu parce que jamm dafa sommes ci rew ñun sommes fait, politique lañ li ñuy wax ni yeb dañoo bokk politique am sommes ñu et te mënuñu raayal kële. Hmm. ko taggal ay nous liñ mën Nous liñu d'accordul ci ñu ko ngir mu fi lool moy la raison d'être de parti politique. Hmm. donc suñuy waxé nous xamné ci Sénégal sunu ci Afrique. suñu cofeel ci pikin mm-hmm. moo ci jiitu mm-hmm. suñu taalibe tamit ci wàll bi ñu nekk roy bi ñu ci roy Ablaye Wade mooy tarbiyu bi muy tarbiyu sëriñam fi mm-hmm. mu jokk moom roy bi ñuy roy Ablaye mooy tarbiyu ñu nit suñu sëriñ ca fa ñu jekku ndax moo ñu jiite ci politique wàññi ne garaatam lu mu rëy rëy dem na tarbiyu sëriñam ñu nit suñu garaat lu muy rëy rëy dañuy tarbiyu suñu sëriñ donc loolu laay tàggoo di leen gërëm di di leen sant di leen wax ne vraiment ñun daal soxla nañ ñaan ñaanu baatin. Mhm. parce que xam nañ ne baatin moo yor commune bi. Mhm. moo yor Sénégal moo yor àdduna. Mhm. bu doon ay milliards la Sénégal fu ñu ko Ablaye Wade jëlee ci budget indi ko ay milliards Macky jële ko fa yokk ci ay milliards ñuy wax PSE te teewul Sénégalais foo génn seen xol di metti ñu xam ne baatin bi moo des. te baatin nag pour mu des il faut que ñu delloo yàlla wàllam julli yi ci biir kër yi ñu wàññi ko di dem ci jàkka yi. bëggante suñu biir yi ñu def ko nit am nga nangul ko ko sa xol sant ci maanaam bàyyi kiñaan kiñaan kiñaan kiñaan hmm. nañu bàyyi kiñaan hmm. kiñaan tëj na boolu xéewal yu bëri ci réew mi hmm. boo solee lu rafet bu ma lay wax rafet na naa ko waxee xol bu rafet uh-huh. ne la jàkk ne la li nga sol dafa rafet mais kiñaan dama ko seetlu man dama seetlu ne kiñaan lu mu ñu xañ ci Sénégal bëri na moo tax milliards yi lu mu bëri bari bëri bëri xol yi ci biir day xat day metti muy fenc ci yi muy fenc ci jamante 1000 francs sax dinañ wax wala ñu xëccoo crédit ma jam la nga dé mm-hmm. moo tax kiñaan la donc problème yépp problème de xol la nañ ko rafetal. Mm-hmm. xamné ne ci biir xol yi la ne. té yalla waru nek fenn fi xamanté xam day xat mm-hmm. ma ngi leen di gërëm. di leen sant di leen féliciter. yeen murit point info di nuyu seen téléspectateur yépp merci beaucoup merci. Euh, jërëjëf euh, monsieur le maire Amadou Diarra. Euh, ñu ngi koy ndokkeel baax a baax ci waxtaan bi mu mel ni sax li ñu cëral ci waxtu xaabaabal ñu ci lu bëri waaye nag tomb yi nu waroon waxtaanee moo bëri ci moo soxal itam réew mi. Euh, ci réew mi moo laaj fi mu toll nii euh, toog diisoo pencoo bu baax a baax ndax pencoo mooy yóbbu réew mi kanam. du réewum Macky Sall réewum Sénégal gépp la réewum ñëpp la kon nag lépp ñëpp lu ne ku da cay nekk kon moo tax tey ñu ñëwoon fii ci bureau doon waxtaan ak moom mu mel ni kon xam naa beneen yoon moom dinañ ñëw ci euh, li nga xam ni moo jëm ci 2016 euh, bi taxawaay bi bi su taxawee lan mooy li nga xamante ni moo gën a jàmp ci lu mu war a liggéey ndax wàllu sécurité baa ngi fii wàllu potolamp yi euh, yu bëree bëri bëri mi ngi fi yaakaar naa loolu benn interview bu gàtt incha allah rabbi beneen jëmmi jamono. li ma askan bi di jox rek laay jël mais falu Macky Sall bugguma ko c'est-à-dire premier ministre place am ko doon jox du ko jël. Hmm. man Karim laay xaar mu génn lu ma bëgg ma dog koy wóor. mais hmm. ay yooyu moom sax. ok jërëjëf bu dem ci Macky bu dem ci keneen ku dul ku dul Ablaye Wade ak Karim merci beaucoup jërëjëf jëf jaa ngeen jëfati kon mu nekkoon seen émission bi nga xam ni moo di yeewu yeewi ci seen euh, site internet euh, murit point info di ñaanal ñëpp di sant bu baax Serigne Mbacke Dieng suñu caméraman bi ñuy jàkkaarlool seen mbokk Moussa Diop ci présentation bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.